nañu lenn aussi école yi nga xamante ne ku ubbi rek da nga naan damay jàngale journalisme ku ubbi rek da nga naan damay jàngale journalisme école pour nga jàngale journalisme il faut que ministère mu jox la autorisation wu jàngale xam-xamu journalisme. il faut que ñooñu di créer école yi ñu respecter charte yooyu ak école bi ba noppi respecter ñun li ñu leen wax parce que am nañ comité boo xamante ne dinañ leen topp. képp koo xamante ne nee nga da ngay jàngale journalisme te ñu xam ne yaa ngi koy def comité boobu dina fa ñëw te bu fay ñëw du la tàggu dañuy ñëw bëccëg xam ne étudiants yi war nañoo jàng ñu ñëw heure cours dugg laaj la sa emploi du temps laaj la sa maquette pédagogique bi nga exécuté laaj la sa corps professoral ainsi ainsi bu fekkee yaa ngi ci yoon. xayrun ñu encouragé la euh, bu fekkente ne nekkaloo ci yoon aussi comité ad boobu am na pouvoiru def recommandation recommandation yooyu dafay dem ba ci ministre de l' enseignement su boobaa nag ci la sanction di daal daal